ñu dellu si waat tuuti ci ci ci làmb parce que keroog gis nga euh, point de presse yi nga xamante ni Boy Niang def na ko Gris Bordeaux def na ko mais ba tey euh, ñu ngi ñu ngi tënku ni làmb war nañ ko mën a def huis clos euh, ki ma seet si nag seet si moo comme sa Ndiaye mi nga xamante ne day ñaanal mbëri mais damaa seet si sa Ndiaye en tant que amateur làmb lan nga gisee loolu. waaw benn moom làmb làmb huis kilo mun a am. ci dépenser xaalisam day perte. day perte. bu ko état jàppalee bu sax day perte bu ko état jàppale sax day perte xam nga lan moo fi nekk di wax. Mm-hmm. ah man de fekkoon maay président CNG wala ma nekk ministre des sports sam papa ji. ay tër ay charte képp ku bëgg seetaan làmb ji da ngay def vaccin contre le Covid 19 kii nu mu tuddati euh, da ngay dem xool ñu xool ba xam am nga Covid wala amoo Covid. testé la ne la billet sàngam lay jar. Mm-hmm. nga dem ran ñu des avant làmb ji ñu dem testé la defal la lépp. xool nga dugg ci biir seetaan jël say matuwaay jël say masque ñëpp takk ko ah loolu laa gis wala loolu moom su mun am moom nañ jéem a xeex ak affaire bi rek mu dañ tamit mbëri yërëm naa leen parce que ku si mel ni am na mbëri yoo xam ne keroog ndeysaan Siteu day wax bay bay bay bay tuur xewal te effectivement lu wax dëgg la euh, war nañ leen mën a jàppale euh, sam papa ji Matar Ba maa ngi lay ñaan rek soo si mënee dara yow ak président CNG ngeen jàppale mbër yi ndax lii si lañuy suturlu yóbbu ko seen kër. am na ñoo xam ne làmb ji kese lañ jàpp beneen métier am na ñoo xam ne ñu ngi doog a door si làmb ji tey kooku noonu li si tabax maanaam soo toogee sa yaay soxla benn 5000 di ko jàmbat mënoo ko ko jox dangay ngay génn dem agressé ji de wala nga génn dem def ji loo war ta def ñu jàpp la ñu ne nit ka dafa bon te or ka bonul yaayam la bëggul muy jàmbat. Ah, kay loolu rek la maa ngi ñaanal mbër yëpp yàlla defal leen jàmm yàlla suturaal leen yàlla tijji seen i buntu wërsëg di leen ñaax nag ne leen làmb ji kese du métier. nañ wuti leneen parce que man lii may def rek kese du métier am naa leneen ak yeneen yeneen projet yu ma ko booleel maa ngi yeneen du lu ñuy wax maa ngi yeneen ak yeneen yi ñuy def am na yoo xam sax soxna si moo koy def waaw waaw kon alhamdulilah ñu ngi sant non yooyu garaawul soxna si mu ngi si wàllu commerce waaw mu ngi si wàllu commerce ay bagages yoo xam turki lay jógee mu koy kii loolu ñoom seen détail la moom waaw mm-hmm. ah, alhamdulilah daal ñu ngi sant yàlla wér daal mm-hmm. Mm-hmm, jërëjëf yàlla euh, keroog bi ma fi ñëwee vraiment am na ci ñoo xamante ni ñu baree baree bari rafetluñ nañ sa liggéey am na ci ñoo xam ne envoyé nañu message man personnel euh, gërëm la wax jëflante yi nga xamante ni jëflante nañ ko ak yow te yow yëgoo ni sax yëg naa loolu. am na ci ñeneen ñoo xamante ni euh, wax nañ ma. la ma nit ñi wax jëflante man li ma la wax léegi ci ASC ECCO am na koo xamante ne ma nga nekk ba Espagne. daf na ma bi ñuy bi mu indee suñu ASC bi dañ koo gagné. mu ne ma kon man fi mu toll nii euh, match boobu match bu amoon importance la ci man euh, lan ngay wax ñi nga xamante ne dañoo yor ASC yi bëgg sa Ndiaye di leen seet si wala ñi nga xamante ne dañoo bëgg a ñaanlu Idi. nan nga leen ki nekk ba Espagne moom dama koy tontu rek euh, dama koy xamal ni man éco bi ma koy liggéeyal dama koy liggéeyal fay ñu ma dara. Hmm. na ma koo wax nga ni fayu ma waaw nañ woo jàkk maa ngi numéro kay ñu woo. foofu sama koñu maam la dama faa bokk. ECHO maa ko gagné phase nationale. ASC defar r bu Thiès. Hmm. déggoo ma de. ECHO am penalty à la trentième minute xaw ma trente cinquième minute. Mm-hmm. te ñun ba ñuy génn regroupement xam du ko dugal xam nañ ñun dañuy dugal suñu bii ECHO soo bëggee ñu woo jaag jaag jaar ci digg bi transféré naa ko ay audio. Mm-hmm. sëriñ boobu xamul ne dama doon liggéeyal ojo dafa ma transféré waat ojo yi naan ma maa yoroon équipe diw équipe diw maa ko gagné léegi lii laag laa. Mm-hmm. te ñoom bi may dem nee naa leen diw bu mu leen liggéeyal bi may xool match bi. écho dañ ma bëgg a fay jaag dafa ma mën ko soxla ma dërëmu écho. Mm-hmm. yor naa xaalis yor naa sama oto dinaa taal sama carburant ñëw jàpp si te yàlla tax. 278 bi nga gis si kaw attaque bi. Mm-hmm. samay numéro la man maa wax balaa vingt cinquième minute day dugal. tekki leen loon morsoy xonk mm-hmm. maa leen ko digaloon morsoy xonk yi doo ko takk te doo bii du am. buñ <laughs> mun nañ ko woo ki nekk Espagne nee ko. bis bu ma bootee écho dëgg mu xam ne daanaan boot na écho. waaye match boobu trahison da ci am woor da ci am moo tax waaw ah, kay mais match boo xam ma préparé ko amul woor amul leer maay buum maay bummi ñu dem nga xool da ngay sonal sa bopp rek. waa ji sant njaay la xam naa day bañ ma wax turam lekk Espagne dégg nga li nga xamante ni wax la ko. ma woowee ko match boobu li si xew yëpp mu dem laajaat jaag jaag wax ko ko. waaw hmm. kay kon alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu wér. waaw moom man aw ma problème yooyu xam nga ku yor ay équipe bi équipe bu bitim réew di leen ñaanal. ay ay équipe nawetaan mooy loolu mais yàlla suñu borom mënul dëkk chaque jour nag di la may ndam tamit bu yàggee yow doo xoolaat sa bopp ana kilifa yu mag yi fi nekkoon sëñ Saliou ak sëñ Mansour si mm-hmm. ana gisatoo leen waaw ku la waxoon dinañ fi mos a jógee doo ko gëm ñoo ñoo ñu gën a jege ca yàlla mm-hmm. alhamdulilah kon sant yàlla